ne jóge nañ douze dugg ci biir xool fi nga xam ne fa lañ samp machine yi te ñu ngi waat fi douze si télé nga xamante ne tey jeunes yi ñoo volonté woon pour defar ko ñu ànd see Xaadim moom mi nga xam ne moom moo sookewul liggéey mu wax ñi nga xam ne liggéey bi noonu ne Xaadim ñu ngi fay Pape Diouf di waa Yoonu Ndam TV yëpp fii nag ñun ñoo ko engagé woon def fi deux jours presque def fi deux jours nekk fi deux jours jënd suñu ñaari oto 16 at presque dix charge charrette dix charge charrette garawaay defar ko mais tamit gis ñu kenn kuñ si jàppale ñun ñoo volonté rek pour defar ko tey suñu yoon unité 12 bi am yoon loolu moo taxoon ñu def ko mais gis ñu kenn kuñ jàppale nag am nañu fi ñëwoon di wax seen i wax waaye ba léegi pour ki dem ba léegi ñu ngi naan dinañ leen mayaat yeneen camion garawaay ñu dolli ko fi mu gën a lii mais mais kenn kenn kiiw fi ba léegi kenn gis ñu leen sotti wuñ fi def dara ba pare côté bi ñu àndoon interview bi gis nga ko foofu lañ dëkk mais gis nga niñ mel bu guddi jotee duñ nelaw yooyu mooy yooyu mbott yi yëpp di yuuxu gis ñu kenn kuñ si jàppale bëgg nañ tamit koo xam ne dañuy ñëw ñoo xam ne dañuy ñëw fii volontaire pour jàppale ñu ñu jéem a xool côté bee tamit barax yi ak suñ canal yi fatt ñu koy jéem a liggéey ndax canal yi fatt na kenn du xam ñu fi tuur mbalit tuur nañ fi mbalit ba mu fatt ndox mi dematul defatul dara bëgg nañ nag ñu ngi si jàppale fii tëli bi moom instant yi defar nañ ko mais si biir koñ ñoo des yoo xam ne nag foofu loolu moom suñ doole mënu ko il faut ñu am ñoo xam ne dañu siy jàppale Kër saar nag moom mooy mooy loolu moom fii maire moom kenn gisu ko maire moom kenn waxu ko Moustapha Mbengue moom kenn waxatut ay waxam dañuy xool ñeneen ñuy jàppale mais Moustapha Mbengue moom booleetuñ ko sax côté bii waa Unité 12 moom gisuñu ko boobu ba léegi depuis taw bi bi mu tawee léegi mën na 10 jours Moustapha Mbengue maire ñëw fi gis nga pompe yi fi ñu demoon hmm. ñooñu benn litre gasoil waa koñ bi ñoo dajaloo chef de quartier bi ñoo dajaloo di wër ci kër yi kër yi di ket ñu leen ñii di leen jox junni ñii di leen jox dix mille ñii di leen jox deux mille kenn moo tax machine yi di tàkk mais bu doon loolu bu doon monsieur le maire rek la ñuy xaar wala préfet bi pompe du tàkk waaw. waaw ah, mais doon nañ doon nañ fi fii doon nañ fi jéem di jéem a xool nuñ koy defaree mais tamit biñ commencé natt gis nga dafa mujj am ay lënc-lënc xam nga tamit. waaw ah, da nga doon natt quoi di ko préparer natt di préparer pour chaque weer cinq mille waaye mujj do jëm kër. kenn xamul xaalis bi fu mu dugg. ah ana président bi. non boobu dañoo dajaloo woon waa koñ bi mag ñee dajaloo woon rek ñu ne chaque weer ñu natt 5000 pour jéem a defar koñ bi mais kenn gisul gisuñu dara gisuñu dara amuñu tamit amul amul kii daal 5000 normal. amul suivi quoi. waaw kay ko kenn jëlu si ndimbal ay nit daal ñoo fi ñëw sànq ki ma dajal moo fi ñëwoon ne naa ko filmal mu envoyé ko moom si zone jaara la nekk. ñu ko ko ñu envoyé numéro yaay ni man maa leen ko envoyé sama whatsapp sax waaye biñ biñ yëpp. Ken vocalul sax tontu wax ben baat ay ay dinañ fi indi dal dinañ xol ñew nuñ leen jappalé mais gisaguñ fi ken non lolou kay lolou kay wax ju yàqu la yow kay dañ koy def fi manam fi ñewut lu leer nga ñuy wax di ñu programme bu leer nañ ñu xamné yow it nit ko nga xamné manam. buñ la far rek nga dem togi sa bureau waaw faté askan bi fi ni kep ku fi ñewuti manam di fi ñew ne da nga soxla mairie Kër Massar di ñu wax lu leer wan programme bu leer nañ moy tax Kër Massar bi fi ñu nak inter 12 bi bëgg nañ kuñ jàppale ñun mom amuñu kuñ jàppale ndax fi tamit dañoo déssé bolo inter 12 bi déssé nañu parce que jotul ngeen bolo tamit parce que bolo moy doole wa mais bolo bi di yomb gis nga terrain bi ni xalé di footballé ni gis goko lepp ay kanting la at fasi ñoo fi nek suñ bolo won terrain bi dina am place publique am terrain basket am fu xalé di àndale wa mais mais bolo mais duñ bolo wuñ motax tamit lool mun ta nekk mu ngi ni fer yaa koy gis xalé yi fer fer lañ fi sorti kenn xamul daal terrain bi am na lu ne waaw ñun nag ñu ngi woo ñëpp képp ku mën a ñëw pour ñëw jàppale ñu tamit ñu ngi lay woo nga ñëw monsieur le maire ak ñëpp koo xam daal ñëw ma si unité douze bi pour bëgg ñoo jàppale ñu ngi taxaw pour xaar la pour nga jàppale ñu waaw dëgg la autorité yi maire war a ñëw fii dëgg la. waaw kër bu ñu indi café gi fekk ko foofu moom mu ngi dégg ma chaque jour. nee na dafa jàpp dafa nekk ci biir bëri alaaji paate affaire yooyu xam nga loolu dañoo bëri coow yaa ngi dégg loolu war a mu nekk tey ba may ndékki ah? woon na ma ma paas ko Mansour kii ah, kii laa ko paas Mansour mu ne ko maire na ko dinaa fa ñëw dinaa fa ñëw dimbali leen comprendre mais gars yi yëpp dafa xaw a jàpp quoi moo war a mais lii moom man may wax ak yow suñu góor a am ndox. kii ñoo dellu kër Mansour ñoo dellu kër Mansour mais suñu góor a sama gars sax dañuy toog ñu ne ma roon mairie ngay liggéey ma ne mairie laa liggéey ñun mais an sa pataro xanaa mu du ñëw ma ne ko noonu dootu ñëw mais dafay jàpp comprendre ñun agent bu ne sa koñ ngay liggéey ngay xëccee ndox agent mairie yëpp ñu ngi buur ñëpp ku ne foo dëkk rek ba ngay xëccee ndox